te eh, mooy ku ma de waaw demel ne demel ne peut y aller. C'est bon, on peut y aller. Hein? Là, ah, j'avoue, si on les attend. Wow. Diagne c'est mbokk euh, presse bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di nuyu euh, les dirigeants de Walfadjri commencé ko ci sunu frère monsieur le directeur général monsieur monsieur Cheikh Niass nuyu aussi sunu frère Moustapha Moustapha Diop. comme nous ko waxee cinq je pense qu'on aurait aimé euh, faire cette rencontre là dans d'autres circonstances euh, mais comme ni ko le directeur waxee yàlla mooy dogal je pense que Moustapha woo na ma cet après-midi pour qu'on parle d'autres mais xamuñu woon ne boobu bi may woon dinañ gisante une heure après euh, pour ñëw fii di xool li nga xam ne mooy ndogal bi nga xam ne moo dal yi Euh, mu nekk loo xam ne lu metti la Moussa Va aussi mi ngi koy wax sànq euh, je pense que même su daloon feneen sunu rôle mooy ñu taxawu Sénégalais yi donc euh, monsieur le directeur monsieur le président vous n'avez pas à nous remercier parce que sunu warugar sunu devoir lañu def su daloon feneen on l'aurait fait avec la même célérité waxuma la nag bi nga xam ne Sénégal yëpp d'accord nañ ne patrimoine la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 au-delà li nga xam ne moom la ñuy je pense que on gagnerait tous euh, ñuy valeurs yooyu noonu ñuy def ñuy def en sorte que muy mu perdurer ku ci am ndog-ndog wala nga am naqar ñu mën ko bokk ak yow ku ci am bànneex aussi euh, ñu bokk ak yow mais heureusement bu ñu discuter ak commandant bi wax nañu ne y plus de peur que de mal parce que mënoon gën a metti moo am ay peut-être euh, des pertes de vies humaines heureusement ko amul comme ni ko directeur waxee dégâts matériels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 pour essayer en tout cas de faire en sorte que euh, métit bi mu mu mu atténuer wu en tout cas voilà loolu lañu amoon pour wax déclaration euh, di remercier waat encore une fois accueil bi euh, à travers le le président le directeur ak l'ensemble des personnels yi nga xam ne ñooy liggéey fii di leen wax ne en tout cas ak taskatu xabaar yëpp aussi parce que lu dal Walfadjri je pense que yéen ñëpp aussi am ngeen ci naqar di wax rek ne on sera en tout cas pour accompagner dans la mesure du lépp loo xam ne mën na leen ci accompagner incha allah je vous remercie voilà euh,